waaw ah, bisimilah rahmaani rahiim Pape Malick coordinateur national du programme des domaines agricoles communautaires dañu ñëwoon euh, tey fii ci Médina indi euh, suñu ziyaare sëriñ bi muy xalifa bi imam Cheikh ak euh, kër El Hadj bi nga xam ne ñun foofu la ñu jokk donc ñëw fii gërëm leen bu baax sant leen ci taxawaay bi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi am ko ci diine gi mais aussi am ko ci dëkk bi ndax tund Saalum bi ñëpp gis nañu. Euh, impact positif bi nga xam ne Maolana Cheikh Ibrahim Niass suñu sëriñ moom la fi am donc ak njabootam donc mu nekk mbégte bu rëy parce que ñu tamit tey nekkul suñu guleti ñëw fii yàgg nañ fi ñëw depuis bu ñuy nekk xale tey rek la dem ba yàlla ñu ay ñu am ko ci réew mi di fi ñëw mais ñëwu taalibe lañ fi ñëw donc di ñaan yàlla euh, gàmmu bi nga xam ne dafa nekk ci contexte Covid 19 am nañu yaakaar ci Maolana Cheikh Ibrahim jabootam incha allah suñu ñaanee salaatul fatiha yeeg yëpp yi nga xam ne ay ñaan la ñu koy ñaan fii am nañu yaakaar ne incha allah suñu fi jógee mbas mi dina wàññeeku bu baax a baax a baax a baax gërëm nañ sëriñ bi nag euh, sant nañ ko euh, wax nañ ko yi tamit li nga xam ne moom la ñu président dénk mu defal ñu si ay ñaan yu am solo donc sant nañ ko si gërëm nañ ko si waaw loolu programme domaine agricole communautaire programme bu ambitieux boo xam ne pour ne euh, ñu ngi nekk ci immigration clandestine donc yaakaar naa encore une fois mun a am loo xam ne moom la ñuy suturloo mu nekk liggéey pour mun a dimbali seen njaboot mun a dimbali seen bopp loolu dañuy wax jeunes rek bu ñu perdre espoir incha allah bu neexee yàlla euh, li nga xam ne président mbébét na ko mu nekk ay objectif en terme de création d' emploi certes Prodac amoon na ay retard mais ñu ngi nekk di jéem a góorgóorlu pour mën ko atteindre ci objectif yi nga xam ne moom la ñu fixé woon bon beneen bi tamit ñëpp gis nañu ne programme bi aussi am na impact ci wàllu euh, promotion euh, culture yi nga xam ne suñu réew la autosuffisance alimentaire loolu aussi ñu ngi si taxaw bu yàlla yaakaar nañ ne incha allah dinañ ci am ay ay ay lu yàggul